yóbbu ko ci kaso Ablaye wadd tëj ko ci kaso bi lu mu dajul ci kaso bi amul ngir rek yëkkati flambeau milieu estudiantin bi di ko xeexee nekk nit bu gore nit bu dëggu kenn jaarul université ci jamonoom te xamoo nee na mbóoj xeex rek xare lu mel ni moom rek mooy benn étudiant benn ñebbi ci biir ci lu ko Ablaye Wade deful ci ñaawteef amul mu gëm ko ba jomaay mii bu muy dugg université ndee mbóoj la fa fekk ku fekkee génération ñoom Ndeye Mbodj étudiant quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi moo la jàppale moom moo la codifié moo la dimbale moo la wutal chambre te boobu xeex bi méttewoon na biir université mu amoon euh, opposant euh, ñii ñii côté bi ñii côté bee ay liste liste rouge liste euh, orange liste nangam ak codification yi métti et cetera et kooku lu nekk dañ na ko donc noonu tamit la président nii nga xam ni bu muy ñëw université moom Ndeye moo ko recevoir jàppale ko codifié ko dimbale ko te wax na jaar-jaaram ndax ci euh, place su tailleur la doon fanaan. président bu mu jógee am bagam bu mu ñëwee ci place su tailleur tailleur boo xam ni day moom day jàng ay kayam ci mbedd mi ci ta ci poto làmp la doon jàngee bu tailleur bi paree liggéey guddi gi mu ñëw tëdd ci tailleur bi bu yeewoo dem université ba ba muy wut néeg ba nga xam ni Ndeye bokk na ci ñu ba dimbale ko pour mu am néeg te boobu nekkul dara. étudiant donc nee na nag bu mu ñëwee biir université fekk na fa masse salariale bu day ni un milliard soixante dix millions notez leen bien un milliard soixante dix millions la fekk masse salariale boo xam ni maanam ñi fa jot a jaar nekk ay directeur COUD ak et cetera et cetera dugal nañ fa seeni jabar seeni doom seen i gel seen i caga seen i taxawaalukat seen i fobeerekat seen i minaaskat maanaam bu ñu leen dajalee par mois université ñooñu ñëpp ñoo xam ne duñu xëy xamuñu sax fu université nekk ñi nga xam ne ñii ñu ngi fële ñii ñu ngi fële ñu ñu mën waa APR dugal nañ fa seeni nit di bu ñu bu ñu génnee salaire bi fay leen ko dina mat ci un milliard sept cent millions loolu la fa Ndeye Mbodj fekk bu mu ñëwee mu def mu mu moom ci poppam mu def audit mu def audit internet li nga xam ne moom mooy kudd il a vu que gars yi def nañ fa ay chargé de mission lu day ni 36 chargé de mission 36 chargé de mission ku ci nekk yaa ngi fayeeku plus de 500 000 francs di wéy mu fekk fa ay conseil technique yu mat ci 24 24 ku ci nekk yaa ngi fayeeku plus de 500 000 ak lu tegal jàpp leen chargé de mission conseil technique mu ñëw xool ne leen chargé de mission amu fi njëriñ lan ngeen di liggéey ku ci nekk di ñaa di ñett Zakaria Camara googu nag ngeen di gis ñu ma leen di wax ni yëpp nag moom bu mu ñëwee kudd moom dee na mbët 99 jàpp leen 99 pour cent du waa kudd yëpp waa APR lañ 99 pour cent moom kese kese moo ci nekk Pastef maanaam bu mu ñëwee ci administration kuddu amul benn pastefien bu mu fekk quatre-vingt-dix-neuf ba mu dëgër këcc waa APR lañ waa APR leen fa dugal ñu nekk fa di saaga di wax lu ñaaw di et cetera di encaisser un milliard sept cent millions un milliard sept cent millions mu am chargé de mission 36 conseil technique 24 ñoom ñëpp ñu am ay bureau toog ñii du xëy am na ñoo xam ne deux ans suñu dugg université di fayee ko bokk na ci Zakaria kamara bi bu mu ñëwee mu jëlee masse salariale bi déjà chargé de mission jàpp leen 36 mu yóbbu ko 10 coow li di kur ñu ne dañ koy lekk ñëw biroom fëgg fa dégg ngeen histoire boobu biroom fëgg fa bu ko agressé 36 chargé de mission 36 la ma fekk yóbbu ko 10 ne leen njëriñ amulu leen ko conseil technique 24 mu yóbbu ko 10 pour l' instant un mois la def un mois jàppaleen leen bu mu defee bu mu fa duggee ba léegi un mois la def chargé de mission 36 la ko jëlee dugal ko 10 ci ñu doon fay cinq 500 millions et 500 mille et quelque mu jël conseil technique yu 24 def ko 10 loolu ñooñu ñëpp boo boolee seen salaire maanaam ñooñu boole boole boolee seen salaire y' a plus de 100 millions de bénéfice yu mu récupéré 100 millions ci ci 1 milliard. sept cent millions un milliard sept cent millions ba mu wàññee chargé de mission de trente six à dix conseil technique de vingt quatre à am na bénéfice su cent millions yu mu dugal ci kees bi ñooñu nag jàmmaarloog ñoom ne dinañ ko lekk ñu continuer Zakaria Camara boobu noonu conseiller technique la mu fekk ko du liggéey du xëy du gont di fayee ko mu jël ko foofu redéployer ko parce que dafa fekk contrat à durée indéterminée bien ficelé mu nekk nit boo xam ne bu ko neexee du xëy bu ko neexee du gontu te day jot salaire am bu mat sëkk ak ay prime donc mu fekk ko ci këram fekk ko sax bureau mu fekk ko ci këram loqoti ko en tant que conseiller technique lañ la ma la ko def gardien la ko def li ngeen di gis noonu mooy gardien gardien la ko def pour muy recevoir ci protocole bi la ko sànni pour muy recevoir étudiants yi ak di leen jàppale ci codification yi. gardien dafa fekk koo xam ni këram la toog di fayeku nekk conseiller technique bu ñëwee université bureau climatisé mu loqati ko foofu sànni ko ci terrain bi ne ko demal nga doon bu ci protocole ba. kon déglu leen lii bu bara xam ni daf koo sànni nag ne ko génnal bureau bi wala noqul jóge sa kër ñëwal du ma la yóbbu au frigo parce que dama la yóbbu au frigo ngay fayeku dama lay sànni ci terrain bi nga liggéey ca la ko sànni ci terrain bi moom Zakaria Camara di liggéey léegi day rës boo di ngeen ko gis léegi te étudiants yi doonu ñu gis Zakaria Camara du woon seen morom conseiller technique la woon di voyager di naaw toog këram di encaisser di lekk ba biir bi fees di di jot salaire am à temps voilà wala bu ñëwee ci bureau bu tooy xapp da ko nokk lokkati ko foofu nokk ko ci mbedd bi ne ko demal ngay recevoir étudiants yi di leen jàppale di leen codifier di leen dimbale loolu la ko Ndeena Mbodj def donc mu xool ci fichier bi gis ne y vingt cinq agents yoo xam ne chaque mois dañuy fayeeku plus de cinq cent mille francs CFA yoo xam ne fichier bi reconnaître leen ni vingt cinq agents yu mu jàpp flagrant délit yoo xam ni fichier bi reconnaître leen mu dàq leen donc dàq na vingt cinq agent yu doon fayeeku chaque mois plus de cinq cent mille yu mu dàq ci xat parce que fichier bi bu mu kii reconnaître ñu leen maanaam ay nervi lañ woon yu ñoom màgget seen placé woon foofu ñuy dóor étudiants yi di gaañ étudiants yi di agressé étudiants yi ak di yoole étudiants yi di fayeeku seen i salaire vingt cinq yoo xam ni bokkuñu ci fichier bi dàq na leen kii de mooy vingt cinq agent yoo xam ni kii noon pas été reconnus par le fichier Donc il a pu récupérer 100 millions de francs CFA en un mois. En un mois. Sur les 1 milliard cent 000. ak ay contrat à durée indéterminée, bien ficelé et bien protégé. On avance. Donc, si nous fait non, non république, nous avons éparpillé l'administration. Nous avons fait le même fait. waaw vingt cinq postes de complaisance ñu nii woon foofu rek Yaya Camara mënu leen dàq képp kuy liggéey ci administration buñ xam nañ ci dara am sañu seede yi toog di cotiser kooku doo ñëw rek di ñu dàq il faut faute grave pour nga mun ko dàq mais loo mun mooy redéployer ko changer ko poste redéployer ko fekk ko ci biiru génn ko yóbbu ko ci àll bi wala yóbbu ko ci naaj bi mu dem liggéey parce que dañ fa fekk ay contrat à durée indéterminée bien ficelée yu ñu teg ñuy fayeeku seen salaire toog muy dox du ñu sax ñëw Zakaria Camara bi ngeen di gis doonul sax ñëw léegi nag day génn ci bureau climatisé yi ou bien euh, en tant que léegi nekkatul conseil technique léegi genre gardien la ci protocole bi la ko boole pour muy recevoir donc toog na presque deux ans en tant que conseil technique tegul tànk université kon yéen a ngi comprendre kon kii ngeen gis noonu toog na deux ans en tant que conseiller technique di fay bu xaalis bu fees tepp léegi nag salaire dafa daanu il recevait plus de cinq cent mille maintenant génne nañ en tant que conseiller technique vingt quatre la ñu woon dañ doon am plus de cinq cent mille bu mu leen génnee foofu trois cent mille da ciy dindee ko ils ont ils maintenant deux cent et quelques da leen baax deux cent et quelques mille waa ji dañ ko fekk mu am cinq cent et quelques mille ndeena génne ko ci bureau yi ak këram gi muy toog deux ans musul ñëw ñëwul mu def ko mu léegi indi ko université dugal ko ci àll bi muy liggéey ci naaj bu tàng bi di recevoir étudiants yi mu rétrogradé ko jëlee ko ci cinq cent mille rob ci trois cent mille parce que li ñu ko def léegi en tant que ci protocole bi protocole université mooy maanaam salaire dafa wàcc dañ ko rétrogradé pour muy leer donc te fekkaat na ñeneen ay jàpp lañ benn maire Malicounda magget seen am na beneen village bu nekk biir Malicounda koo xam ne maire la ay conseil technique lañ ay pas conseil technique ay maire conseil technique ay ñoo xam ni ñu ngi ci àll ba nekk Malicounda nekk Mbour nekk ci àll ba yoo xam ne ay conseil technique lañ yuy recevoir seen salaire de cinq cent et quelques mille musuñu teg tànk université bokk na ci maire benn village bu nekk Malicounda koo xam ne en ce moment là en prison ba mois bii nii jotul salaire am da na vingt cinq agents yu ñu reconnaître dàq na ñeneen ñoo xam ni ay maire la yoo xam ne ay maire yu am soixante dix ans conseil technique ay ay pa bu am quatre vingt ans conseil technique yoo xam ni ñu ay xamuñu ñan la parce que bu mu leen woowee gars yi ba léegi ñëwuñu te gis na ni ñu ngi doon jot seen salaire donc maire bi nga xam ne mooy maire ville bu nekk Malicounda benn village kooku da doon recevoir mais de mi ngi en prison dafa jaay ay terrain jàmbur boo leen ko gëstoo sax di nga gis moo taayee passé mi ngi ci kaso bi nii kooku ci conseil technique yi la bokk musul teg tànk université ci conseil technique la ci benn village bu nekk Malicounda da doon jaay ay terrain ñu jàpp ko mu ngi ci kaso bi nii jamono ji doon na recevoir chaque mois maire de Sindia très bien le maire de Sindia ki est présentement en prison était un conseiller technique de Maguette Sène un bandit de grand chemin bu ñu jàpp jamono ji mi ngi en prison mu dagg salaire loolu moo tax salaire yu mu dagg ak agent vingt cinq agent yooyu nga xam ni agent fictif la ñu liggéey ñii du liggéey loolu bu mu ko daggee yooyu yëpp ci mois de un mois re am na bénéfice su cent millions cent millions ak ay maires yu nekk Malicounda ay maires yu nekk Kaffrine ay paa yu nekk Kaffrine et cetera et cetera donc ñii ay nervi lañ musuñu fa ñëw ay vieux ay maire ay nervi et cetera et cetera ñu doon laaj diggante cinq cent à huit cent mille cinq cent à huit cent mille donc bo jàpp leen conseil technique yi c'était vingt quatre chargé de mission yi trente six ay pas ay maire liggéeyul ok donc boobu ba léegi day recevoir ci bureau ay ga kuñ gaay chaque jour dañ fay ñëw de 9h day ubbi bureau suba suba boo neexee dangay dem kii si jub muy université il ouvre ses bureaux à 9h il ferme à minuit ku mu neex ñëw Ansoumana Sané 99 pour cent nee naa leen sont de la paix et ont des contrats de durée indéterminée ki ngeen gis nag muy Zakaria Camara c'est c'est un syndicaliste. secrétaire général de syndicat chargé des affaires syndicales gis ngeen ku mu buddi borom doole la ku mu buddi nii borom doole la ku mu buddi ku mu buddi nii <laughs> sa waay foog nga am fit pour mu ko buddi de Zakaria Camara syndicaliste la biir université syndicaliste un jàpp leen chargé des affaires syndicales de l'université jàpp leen deux nekk un conseiller technique jàppaleen leen xam ngeen syndicaliste <laughs> daana ko yombul il faut nga guerre ak moom syndicaliste daana ko yombul de c'est un syndicaliste secretaire un secrétaire général de l'université c'est un chargé des affaires syndicales de l'université c'est un conseiller technique du directeur de Coudre mu fekk ko foofu buddi ko loxoti ko en tant que syndicaliste en tant que euh, secrétaire général chargé des affaires syndicales muus ko ci àll bi da ko demal nga liggéey ngay recevoir étudiants yi donc ñu bëgg ngeen xam loolu liñ ko def nii kenn dañ ko wàcce dañ ko rétrogradé dañ ko rétrogradé ak ponkal lañ fa fekk yu waa APR mii ne muy saaga suba ak ngoon seen syndicat du personnel waaye xoolal dañ dañ ko fa teg muy saaga Sonko suba ak ngoon guddeeg bëccëg di wax lu ñaaw ñu def ko mu doon benn chargé des affaires syndicales di personnel ba nekk syndicaliste nekk secrétaire général di syndicat di euh, personnel du COUD donc ngeen xam lii sa waay ku amul fit munoo wàcce waaj ku amul fit ku parewul pour guerre munu munu laal waaj Ndéné Mbodj a été très très très engagé parce que ragalul kii dugg na jeel mbërën na depuis ab Ablaye Wade kon mu am munul ragal waa ji kii amul bët yu mu yor yu Ndéné Mbodj war a mun a taxaw di ko jëlee di ko di ko ragal wala di ko yéegal wax jaa ngi fii ku mun rek na dem indi leneen ñun suñu wax moom jalu muus la duñ ko laal duñ ko jege bu yàlla wàccoon ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam duñ ci laal virgule parce que dañuy xam lu ñu wax xaqiqatan la doomu aadama sàkkuñu ko ci ancien spermatozoïde futur cadavre ku mun a dindi li may wax man moom fu ma tëdd nelaw aw ma ci tiitaange aw ma ci ragal samay wax moom foo ko yanoo di nga ko fa tegaat <laughs> boo ko yóbbeelee sa baay da koy dala koy delloo ko joxee sa te koy wiccax na ko de jëla jëla yóbbu yóbbu yóbbu waxu xaqiqatan la bu dëgër kaj bu woo kong moo tax ki koy wax bu tëddee rek day nelaw amul amul ko dox ci suuf koo xam ne damaa wax dala di ci xel ñaar wala di ci ragal donc nee na mooy directeur u kudd moom mooy nouveau directeur u kudd donc wax ji nga xam ne Zakaria Camara yàgg na di ko def di ñëpp dañ koo ñaawlu mais waa APR la kenn rafetluwu ko léegi nag da ko jëlee en tant que conseil technique sànni ko ci protocole bi protocole bi day accueillir les étudiants et orientation kese déglu leen de un conseiller technique chargé des affaires syndicales syndicaliste secrétaire général du syndicat d'un syndicat du personnel de l'université nga loqote ndaayam foofu sànni ko ci al ci ci ci naaj bi université mu génn ci bureau yi toog ci këram di toog muy dox di recevoir léegi da ngeen koy gis yéen yi ponkal moomu ngeen gisoon dinosaure boobu ngeen gisoon muy Zakaria Camara dañ ko loqati foofu noq ko léegi boo leen duggee université di nga doon fekk mu taxaw di leen recevoir donc maintenant il accueille les étudiants ak di leen orienté en attendant ñu lijjanti kaam mais en attendant poste bi moom wàcc na fa poste ba ngeen gis nii du tous lu dul accueillir étudiants yi ak orienté kon jële nañ ko fa mu nekkoon rétrogradé ko wàcce ko ba mu mel ni xaj loolu mooy poste bi en attendant nag donc dañ ko replacer et c'est sur décision nitu Maguette Sène mu ñu placé jël ko jox ko lépp mu muy recevoir plus de huit cent mille léegi nag amul sax salaire u cinq cent mille génne nañ ko foofu te muut la def en tant que syndicaliste muut mbaa mott rek parce que nu ngeen paree pour xeex noonu la nee na mba pare pour xeex a waa ji gis na ko xam na xam na waa ji gis na ay tuite a gis na lépp ni ngeen ci paree ni ngeen di taxawee noonu la ci taxawee kooku xeexam du léegi donc macha allah donc am na nee na daq dàq na koo xam ne def na fa 15 ans wàcce na ko mu du ñëw mukk université toujours ab sax dàq na chargé de marché chargé de marché koo xam ne ci marché marché université rek la doon chargé wu dem leen université doo leen ko fa fekk nee na mooy dàq na des marchés day toog rek mooy chargé marché université yi ba ñu waa APR teg ko fa muy encaissé di chargé marché dàq nañ ko boo leen demee université doo leen ko fa fekk nee na mooy dàq na ko chargé du budget de l'université Ndéna Mbodj dàq na ko je vous donne rendez-vous à l'université ngeen dem gëstu ji ko dinañ leen wax ni ki fa nekkoon chargé du budget bu war teg ko fa dàq nañ ko muy ñaar chargé de la communication de l'université koo xam ne dañ ko fa tegoon moom tam ça fait plus de dix ans dàq na ko daq na ko ca xaj donc mi ngi ci balee dàq na vingt cinq agents yu fichier bi xamul récupéré na plus de million ci benn masse bu un milliard sept cent donc ngeen jàppee ko nii la demee nii la fay demee nii la fay demee en attendant en moins de un mois lii la fa Ndéné Mbodj def en moins de un mois nay leer nañ nii lii moo am moo existé bu mbir yi la demee rek ñu dem au fin fond des choses lijjantil leen indil leen tegal leen. vidéo baa ngi fi jox naa ñu mun a weddi cinquante ans cinquante ans virgule duñ ko dindi man nag samay vidéo du deñ ñu mën afronte affronter bépp doomu aadama buy dox ci kaw suuf samay vidéo du deñ mi ngi fi ku am ngaam wala xel boo jàpp ni xelu dëmm la bu ngaa nooxóor ba naaw indi contredire ma maa ngi lay déglu waaw maa ngi lay déglu boo ñëwee rek indi lu leer naa ñi teg dindi li ma fi def barki alxuraan lu ma yor ma jox la man moom damay man moom damay damay jaayante waxoon naa fi Macky Sall boo amee possibilité yanu ma fii yóbbu ma ma jox la sama bopp ma liggéeyal la maa ngi nii toog noonu laay mën a jaayantee nag dama ne li ma teg nii ku ci dindi virgule ma ma doon sa ma ma xoolal ma doon sa mindaar ku ci dindi virgule je défie tout le peuple sénégalais ku fi dindi virgule virgule boo ko ci dundee xoola ma doon séminaire donc lii la Ndeye Mbodj def en mois de un mois biir université lii la fa fekk chargé de mission trent 36 mu def ko 10 conseil technique 24 mu def ko 10 masse salariale bu 1 milliard cent mu def ko 900 millions 1 milliard 700 mu daggate daggate daggate ba def ko 900 million di xëy 7 heures di ubbi bureau à 9 heures ba minuit ku dugg université fekk ko fa dàq 25 agents qui n'ont pas été reconnus par le fichier récupérer 100 millions jël ñi ne woon ci bureau yi toog muy dox ak toog seen kër yi muy dox mu jël leen ne leen da ngeen di ñëw wala ma dàq leen da di liggéey si toog muy dox jeex na da ngeen di liggéey si wala ma dàq leen comme ñoom dañoo nar a liggéey si di toog ci bureau yi. mu rétrogradé leen redéployé leen yóbbu leen léegi ñi ngi ci terrain bi kon nag nii la mbir yi demee sama gars yi ngeen xamee ko noonu ngeen xam ni li ngeen gis nii kooku ku leen jox information bi daf leen war a wax lan la doonoon ba mu fal ko ba ba ñu yóbbu ko parce que waxtaan ñaar la bul doon ngaaka nit bu ñëwee ne kii fal lañ ko nii da nga naan lan la doonoon ba ñu fal ko est-ce que ci mbedd lañ ko fekk fal ko lan la doonoon da doon raxas duus ñu fal ko mu doon buur wala dafa nekkoon ci bureau ñu dox ko muy raxas duus mindset set man duma doon ngaaka ngaaka du ma ko doon mukk du ma nangu nit nii man loolu mënu ma ko nangu nii quoi nit yow nga juddu sa yaay jur la man sama yaay jur la ngay ce ngay dank ceeb may dank ceeb ngay liir may liir ngay gëstu may gëstu may lay seetaan nga may juutal di ma foog ci fooyee ci ay information di ma nax nii di mbet mbiiñ mbaaj non non non non non loolu sama àqu njureel may ma ko saa yu ma toogee xool ne mais kii kii jigéen a ko jur jigéen a ma jur pourquoi ma war a mun a toog ton toot booy bi di ma juutal di ma foog ci information balaa mu ko def dina xam ni fii roc la fi fekk bu laalee mu dëgër këcc wow koŋ mu xam ni kii du ko ñuy juutal di foog lépp ci set loo indi ma laaj la fan la nekkoon ba muy doon lii lan la doonoon parce que du ma ñëw rek nga ne non kii lii la ma ah, la non fan lañ ko fan la newoon fan la nekkoon laa la laaj fan la nekkoon dañ ko for ci mbedd mi indi ko wala dafa nekkoon foofu loolu lan la doonoon loolu c'est important loolu mooy mind bu kenn nangoo doon dof ci town bi na ñëpp ubbi seen xel yi ñiy jéem a xool nu ñu manipuler ak nu ñu détourner ay yaay lañu am ak ay papa gënuñu ñu ndey gënuñu ñu ñu bàyyi ëpp ñu ñu mind ba war ñu mun a di manipuler ëpp ñu ñu mind ba war a di ñu jongale ëpp ñu ñu mind ba war a di ñu fooyee ëpp ñu ñu mind ba war a di ñu di ñu mbiij mbaaj non non non dañuy war a mbiij mbaaj gis benn waaye bu yow taxaw jàkkaarloog ñoom fu ñu dóor mu mu lelli fu ñu teg mu mu teggi fu ñu gas mu suum day dañuy xam ni kii bandi maayen la bandi maayen du ko ñuy ñëw rek njaaba njalle futti sëram juutal laal dem sa yoon non non non lank leen lank leen xel mii kenn du ko lekk pour xalaat la bët pour xool la gémmiñ lañuy ñuy lañuy la mu ànd ak ay boutique xel kenn du ko lekk da nga koy use ay neurones la ay neurones da nga koy use lu dul xel yàlla da cee def ay neurones yu ngay use ay ay neurones boo ko usee dana teg day mel ni day mel ni luy fekk taf donc maayin maayin na maayin yi di na yuur yi di yëngu na yuur yi yëlëb leen yuur bu leen doon ngaaka ci dara lank leen fi kenn ndaam jur ko fi ku war a mën fooye yeneen nit yëlëb leen yuur yi yëlëb leen yuur yi ba mu nañ tag bés leen neurones yi muy teg muy muy teg naan taf taf taf taf ngeen taxaw jàmmaarloog ñoom rupture moo fi am moom lañu ñu woote moom la gaa yi di liggéey lépp lu am dinañ leen ko tagal dinañ dem gëstu lijjanti ñëw teg ak kenn ku mu doon ku nekk ci nguur ak ku newul ci nguur du ma kenn ku ma nax du Sonko du Jomaay du Ndeene du Pape Alé amul koo xam ne yaa ngi dox fii yoo xam ne damay doon ngaaka loo fi teg dinaa ko teg ci taabal loo fi teg dinaa ko teg ci taabal koo doon nag sama bopp rek laa gëm nag man sama bopp rek laa gëm awma complexe benn doomu aadama loo fi teg nga teg ko ci table loo fi wax dama koy teg ngi di ko toj bu dul bu yàlla bu dul bu yàlla rek laa dul xalaat bu dul bu yàlla kese moo fi nekk boo xam ne duma ma ko xalaat du ma ci awma ci xel ñaar loo fi waaye teg jàppal ni man ko teg sama table bii yor sama big sama feuille di xool fan fu mbir ne lu ma ci war a gëm lu ma war a gëm lu ma ci war a gëm tegee lee lu ma ci war a gëm ubbi mbalit bi tag mu tëg ma dul tël tëjaat dox sama dox <laughs> noonu laa doxe donc man noonu laa doxe noon la ma yàlla configure te maa ngi ci sant yàlla moo tax nax ma do yombul nax ma yombul bu ma la naxul mu doo nax bu ma la naxul doo nax donc ngeen xamee ko noonu du waajuñ for ci mbedd du waajuñ dem jël nii rek waaju amoon post bu baax la di fayeeku plus de huit cent et quelques mille nekk koo xam ni conseil technique la woon yore woon bureau doonul sax liggéey si xëy toog muy dox la toog na deux ans ñëwul université bu sa waay ñëwee nag teg xaqiqatan bi bu dëgër këcc bi teg veto bi na lañ da ngeen di liggéey si kii chargé des affaires syndicales la kii ngeen di gis Zakaria Camara syndicaliste la ki ngeen di gis secrétaire général la ki ngeen gis ni conseil technique la ku ñu dem yóbbu léegi muy gérer ci sànni ko ci protocole bi muy gérer accueil des étudiants et orientation waa jaa ngi noonu kon ñu ngi jàll nag boobu leer na maa ngi dem nag bu taxaw leen nag bu leen jóge de taxaw leen fi ngeen taxaw bu leneen amaatee rek comme ni ngeen ko defee nii door leen mu signe ma génnaat dem buuju bagage yi ñëw indi lu ci amul kenn nag koo xam ne yaa ngi fii di dox koo xam ne doon naa fi sa géwél de du ma fi doon géwélu kenn kenn nag gisuma ku fi ku fi ndàmpul sa sa sa yaay mu mu ngay namp ngay namp ngay ngay ngay namp soow man may namp soow mbaam soow meewul yaay bi ngay namp laa namp bët yi la yàlla may la ma may xel bu la yàlla may la ma may duma la nangul dara duma sa jaam duma sa géwél duma tagg say maam defaloo ma foog shit dañu bokk projet bi bokk job bi taxaw ngay wax ci dëgg di dox ci dëgg ma ànd ak yow ci dëgg booy jalgati may mbéj sa maam ak koo doy nag koo dal koo dal koo mun a doon aw ma ci yow man aw ma complexe ci benn doomu aadama buy dox ci kaw suuf kooku day leer donc moom ko gëm a gëm sama bopp gëm sama bopp ba gisuma lenn lu ma lu may xool nii nga jommal ma damay gis nit la ancien spermatozoïde futur kata wax fi lu leer lu wóor wala nga dégagé point dox fi dëgg gis ma tegu ci foo ma mbiij bàyyi la foofu man noonu laay doxee te maa ngi ci sant yàlla te yàlla bu ma ci génn yàlla bu ma am benn complexe benn doomu aadama yàlla na ma ci yàlla musal man benn star laa am yàlla la moom mooy loo xam ne lu mu teg du ma ko jëndi lu mu wax gëm naa ko duma ci xel ñaar duma ma ci werante benn star laa am yàlla la le prophète sallallahu alayhi wa sallam point donc nii la mbir yi demee gars yi waaw chargé des marchés tëbal nañ ko chargé du budget de l'université di kudd tëbal nañ ko chargé de la communication kudd tëbal nañ ko def nañ fa plus de dix ans vingt cinq agents yoo xam ni fictif la ñoon tëbal nañ leen ñi nga xam ne ñoo newoon conseil technique yi euh, euh, vingt quatre léegi dix lañ chargé de mission yi trente six la ñu woon léegi dix lañ donc masse salariale bi un milliard sept cent léegi neuf cent millions la et cetera et cetera yéen daal surveiller leen les parages lu débordé boo leen ma waxee ma dem jaayante comme nu ma leen ko waxee am naa possibilité yi xaw ma luñ may tëjal jamonoy Macky Sall laa doon dem di buuji information waxuma la léegi heureusement nag ñii di autorité yi tëjaluñ ma bunt yi tëjaluñ ma dara ils m'ont ils ont beaucoup de respect pour moi bu ma ñëwee respect boobu ñu ma may dell may dama leen koy delloo bu ma ñëwee je parle avec eux autorité yëpp ku ci nekk yor naa seen numéro bu ma amee lu ma leeru dama lay woo en tant que ba ngay xeex may xeex nit yi di ma déglu xam ne lii lu crédible la man nit yi ñoo mu la falee nit yi ñoo ma fal sénégalais yi ñoo ma fal ñoo jël xëy baaxee ba seen noppu am ci man confiance ma war leen wax dëgg xàq bil xàq dëgg sa right all right kaay wax fi tey mu leer bala fi ñu la di weer na mel ni jant ak weer man nit yi laa gëm peuple sénégalais bi lu ma doon ñoom ma ko def lu ma doon ñoo ma ko def ñoom rek laa jiital ñoom laa gëm ba bu may sangoo suuf ñoom laa jàpp ni ñooy samay boos ñooy samay seigneur ñooy samay kilifa ma jiital leen nit lu ñu bëgg dinaa ci dox lu ñu bëgg am leerlu dinaa ko lijjanti jox leen ko et cetera et cetera te wutuma ci dara macha allah doo dégg mukk partagé leen doo leen dégg mukk aimé leen live bi doo leen dégg mukk euh, like leen doo leen dégg mukk euh, na partagé mukk xaaruma dara ci yéen yéen rek laa gëm jiital leen ci lépp xaar bu xaalis laa xaar ci yéen du salaire du partage du aimer du like laajuma leen dara lépp ma dama koy def ci ndax sacrifice lu ñu wax suicide individuel pour une résurrection collective li ñu wax moom mooy le don de soi pour la patrie man dama ko gëm le don de soi pour la patrie li may def nii c'est le don de soi pour la patrie bu ma soxla autorité bu ma soxla dinaa la woo sa téléphone directement man la moolaa peuple bi dañ ma interpellé ci tel ma buggoon cee am lu ma leer dëgg nag laa wax bëgg am lu ma leer nga tagal ma lu leer nañ lu ci leeru ma ne la lii leerul question posée question réponse question réponse ba mu leer nañ ma teg lépp noté bàyyi la fa ni ñukk dem jëlaat keneen ku la jage keneen ku la jage trois tant que aw ma ñett seede du ma damay dem ca ndayi mbill gi dem ca opposite side dem ci beneen côté ba dajale ñett ba mu dëgër këcc ma jox ko askan wi bu may tëdd léegi di nalaw parce que damay gis ni conscience tranquille jëluma alalu kenn jëluma dërëmu kenn fenaluma kenn conscience tranquille point kon nag jërëjëf le peuple sénégalais surtout les patriotes ci seen taxawaay patriotes yi seen taxawaay rafet na continuer leen nii la il faut les surveiller comme du lait sur le feu il faut les surveiller j'aime bien seen surveillance il faut les surveiller di alerter encore une fois protéger leen projet bi merci beaucoup lii laa leen doon wax ab ab directeur wax na wax ne ma moo laa maa lay dégg ngay wax ak sénégalais de protéger leen projet bi protéger leen mais lii la je suis fier de vous très très fier de vous ça montre que yéen a ngi projet bi loolu rek la protéger leen projet bi ci dëgg protéger leen projet bi ci dëgg protéger leen projet bi ci dëgg bu leen ko mus a protéger ci fen loo leen gisi fen bu leen ko jéem a défendre parce que fen est une abomination bu la benn nit jaral ngay tooñ yàlla fen c'est une abomination protéger leen projet bi ci dëgg tant que mi ngi ci dëgg protéger leen boo leen gisul lu ngeen xamul génn leen euh, frustré mer wax ñu dem lijjanti lan la tagal leen ko ci table bi kon nag protéger leen projet bi protéger et veiller au grain am na solo macha allah di leen big up sant ci yéen kontaan ci bu baax a baax a baax a baax sama gars yi one love euh, peace and love good night guddi na trop maa ngi jégalu sax ci euh, euh, guddi waay bi donc jaajëfaay sama gars yi peace and love et le combat continue on protège le projet les gars on protège le projet marquage à la on protège le projet jaajëfate nga xam ne mooy recrutement yi am na solo am na njëriñ seen taxawaay rafet na ci ñaar yi ko jàngate benn mooy projet bi yéen a ko gëm yéen a ko xeex yéen a ko jaayante seeni frère la ñu rey seeni sœur la ñu rey seeni frère la ñu tëj ay kaso yéen la ñuy gaañ donc projet bi jaral na leen àdduna jaral na leen alaaxira donc nit ñu liggéey na xeex ko yor seeni xel yor seeni xalaat du ñu nangu kenn ku musul gëm projet bi ne danget projet bi yóbbu di ci jëriñ sa njaboot te da ngaa xeex projet bi sa giiru dund danga koo xeex boobu bu tey bu doon sa pexe dafa sotti projet boobu du sotti donc ay nit jàmmaarloog ay noonu projet bi di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba yàlla suñu borom kàttanal leen ñu teg ñuy dee ñuy gaañu ñiy lagge ñiy dugg ci kaso yi ñuy daw ñuy jaar ci géej gi daanu tëmb dee ñiy yegg laqatu donc li ngeen daj yàlla xam na ko moo tax yàlla fekk si leen defal leen xéewal jël projet boobu tey moom mooy jiite réew mi donc c'est normal ci seen dëgg ngeen nekk moom mooy xeex ba nga xam ni seeni noon duñ ñëw ngeen rayante bay bëgg a dee golo bay baabuñu dundee lu ngeen fi jaayante yépp seeni noon ñëw jël projet ba te gëmuñu projet bi bëgguñu projet bi dañoo xeex projet bi di noonu projet bi xëy ñu wëlbatiku di leen nominer ñu jël toog fu ñu toog di lekk ka di dundalaat seen njaboot loolu day mel ni ku ci xool sa bopp rek danga naan man est-ce sama yaay liggéey na wala man est-ce que man ci li ma nekk dëgg la parce que mënuma xeex bay bëgg a dee teg li ma fi teg tey samay noon ay noon yi nga xam ni dañoo taxawoon gar seen bakkan ni dinaa dee mais projet bi du jàll ma gëm ko sama ñii dee ci ñii gaañu ci ñi dugg ci kaso yi ñii gàddaay ci ñii dee ci géej gi ñii ñu rey leen tëmbal leen ci géej et cetera et cetera et cetera muy lu méttee métti te yàgg diggante deux mille vingt et un ak lu patriote yi daj mburu daju ko ci fuur donc yoon la ñu jël projet bi teg ci seen bakkan comme depuis 2021 ba suñ jon yàlla tey ne nag seen i noonu kenn du leen dugal ci projet bi te am nañ ci yoon te am nañ ci dëgg macha allah seen taxawaay rafet na noonu la rek il faut bien surveiller projet bi bu leen doon ay kumba amul ndey bañ leen loolu nu leen xeex bay bëgg a dee ay nit toog jël projet bi dem di ko jox seen i noonu na ko jar sax ñu jëlaat cocktail molotov yi songaat ñu fi teg ñi nga xam ne dañoo wor bu boobaa wor lay tudd parce que nit mënul ànd ak yow xeex bay bëgg a dee gëm projet bi ànd ak yow di jóg ko daanu di rayante jël xaalisam bu ñu cotisé bu ñu nee cotisation Sonko dund na fi ay at yoo xam ne cotisation nit yi ñoo lañ koy jox mu koy jël ay oto yu ñuy jël ay nit ñooy jël sacrifice jox leen ay oto yu ñuy dawal boobu newuñu ci administration génn nañ leen ci administration amatuñu xaalis patriotes yi ñoo doon cotiser ay millions di leen ko jox ñuy lekk ka naan di jox seen i njaboot donc tey mënul neex a neex a neex ba ñu trahir patriote yi bu bu ñu metti patriote yoo fa taxaw donc bu amee kenn koy jëriñu patriote ñoo war a jëriñu balaa kenn di jëriñu kon nag nañ leen wóolu gëm leen jox leen projet bi parce que dañ koo gëm am na am nañ xam-xam am nañ xalaat dañuy gëstu jël yàgg nañ ci investir donc ñoo mérité poste yi loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg ñu koy yëg ci kaw ñu koy yëg ci suuf loolu mooy dëgg moo tax ñu teg ci seen bakkan ne duñ nangu kenn ab noonu projet ñu koy jox muy muy jël benn place di ko doxal wala di def la ko ci neex loolu moom na ko jar na na ko ni ngeen koy doxalee nii noonu la man damaa kontaan ci yéen si seen taxawaay macha allah waaye comme ni koy waxee saa su ne bu dara amee man dinaa dem au plus profond des choses gëstu xam lan la lijjanti ko ñëw jox leen euh, te boo leen seetloo ma tàmbale ko ci Pape Alé lii mu jot a traversé nii di ko traversé waxoon naa leen ko alerté woon naa leen ba ne leen protéger leen projet bi parce que seen seen gars yi ngeen jiital dañoo dugg ci benn zone boo xam ni APR lañ fa miine ba mu fees dell administration bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent waa APR lañ administration bi nii nii nii ñu taxaw fu dëgër ñu si signé leen ay yi ñu am ay contrat yu wow koŋ ñu ficelé ko ficelé bandi ba nga xam ni pour nga rocc leen foofu noonu day mel ni nga buddi guy donc ñoom xam nañ ni day mel ni benn bëy bu bu ay bëy ay bë ay ay bukki wër donc loolu avisé woon naa leen ci ci Pape Alé parce que xamoon naa ni fii lay mujj ñooñu dinañu retourner di ko bëgg lekk parce que foofu la toog muy dox fekk baax ay nit yoo xam ni xamatuñu woon direction wu RTS fan la seen kër yi lañ doon toog yor port yor portable crédit cent pour cent di woo seen gel yeeg seen cage yi mu ñu xëy duñu xëy duñu gont toog fu ñu toog di recevoir salaire u neuf cent mille am na ñu ci am salaire un million deux cent te xamuñu fu RTS féete ñu ngi toog ne yàmbalam di lekk xaalis bu bari chaque mois ñii ñu ne dañ leen yóbbu frigo ñii ñu ngi toog yor ay oto oto RTS di ko dawal essence bi dañ leen koy jox gratuitement ñuy lekk ay prime di am ay privilège yor ay billet avion yoo xam ne même bu ñuy seeti seen i caga dafa dañuy jël ci billet avion RTS bi dem voyager ci mel ni kuy dem benn euh, euh, meeting wala kuy dem benn euh, reportage wala dara ndekete yow sax caga ngay dem wëri ngay dem euh, euh, kenn koo iri yóbbu ko Paris pour tëddee ko wala et cetera et cetera parce seen jabar yaa ngi fi dañuy làqatu donc loolu moo nekk RTS muy lu doy waar lu yéeme lu catastrophique ay nit ay dinosaures lu toog di lekk xaalis bi diggante bi nag directeur bi di dem signé waat na yeneen contrat yu dëgër këcc moom RTS ba pare jël financement yi joxaat leen ba pare yokkaat seen i salaire pour lan bu Pape Alé ñëwee wala ki koy bu ñëwee am ay d'énormes problèmes trésorier nga xam ne du mun a fay nit yi bu boobaa gars yi wala bu laalee ci salaire gars yi ñooñu dañuy wëlbati ko doon ay noonam loolu moo am RTS. léegi nag loolu am RTS sama waxoon leen ci moo am tamit kuddu déglu leen bu baax am na solo nag seen taxawaay waaye déglu leen bu baax nag comme nu ma ko alerté woon ci RTS looloo amaat kuddu ki nga xam ni mooy Ndéné Mbodj. ñëpp xam ko université mu nekk ab étudiant boo xam ni gëm am ay conviction di xeex ñun fekk nañ ko fa muy xeex di xeex gérer étudiants yi di xare ba dugg ci kaso Ablaye Wade tëj ko ci kaso bi lu mu dajul ci kaso bi amul ngir rek yëkkati flambeau milieu estudiantin bi di ko xeexee nekk nit bu gore nit bu dëggu kenn jaarul université ci jamonoom te xamoo Ndéné Mbodj xeex rek xare lu mel ni moom rek mooy benn étudiant benn ñebbe ci biir ci lu ko Ablaye Wade deful ci ñaawteef amul mu gëm ko ba jomaay mii bu muy dugg université Ndeye Mbodj la fa fekk ku fekkee génération ñoom Ndeye Mbodj étudiant quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi moo la jàppale moom moo la codifié moo la dimbale moo la wutal chambre te boobu xeex bi méttoon na biir université mu amoon Euh, euh, opposant euh, ñii ñii côté bii ñii côté bee ay liste liste rouge liste orange liste nangam ak nangam codification yi métti et cetera et kooku lu nekk dañ na ko donc noonu tamit la président mii nga xam ni bu muy ñëw université moom ndey ne moo ko recevoir jàppale ko codifier ko timbale ko te wax na jaar-jaaram ndax ci place su tailleur la doon fanaan président bu mu jógee am bagam bu mu ñëwee ci place tailleur tailleur boo xam ne day moom day jàng ay kayam ci mbedd mi ci ta ci poto lampe la doon jàngee bu tailleur bi paree liggéey guddi gi mu ñëw tëdd ci tailleur bi bu yeewoo dem université ba ba muy wut néeg ba nga xam ne ndey bokk na ci ñu xare ba dimbale ko pour mu am néeg te boobu nekkul dara étudiant la donc nee na nag bu mu ñëwee biir université fekk na fa masse salariale bu day ni un soixante-dix million notez bien un milliard soixante-dix million la fekk masse salariale boo xam ni maanaam ñi fa jot jaar nekk ay directeur COUDEC et cetera et cetera dugal nañ fa seen jabar seeni doom seen i gel seen i caga seen i taxawaalukat seen i fobeerekat seen i minaaskat maanaam buñ leen dajalee par mois université ñoo ñëpp ñoo xam ne duñu xëy xamuñu sax fu université nekk ñi nga xam ne ñii ñu ngi fële ñii ñu ngi fële ñu ñu mën waa APR dugal nañ fa seen nit di bu ñu bu ñu génnee salaire bi fay leen ko dina mat ci un milliard sept cent million loolu la fa Ndeye Mbodj fekk bu mu ñëwee mu def mu mu moom ci boppam mu def audit mu def audit internet bi nga xam ne moom mooy kudd il a vu que gars yi def nañ fa ay chargé de mission lu day ni trente six chargé de mission trente six chargé de mission ku ci nekk yaa ngi fayee ko plus de cinq cent mille francs di wéy mu fekk fa ay conseil technique yu mat ci vingt quatre vingt quatre ku ci nekk yaa ngi fay ko plus de cinq cent mille ak lu tagal jàpp leen chargé de mission conseil technique mu ñëw xool ne leen chargé de mission 36 amul fi njëriñ lan ngeen di liggéey ku ci nekk di ñaa di ñett Zakaria Camara googu nag ngeen di gis ñu ma leen di wax ni yëpp nag moom bu mu ñëwee kuddu moom dee na mbët 99 jàpp leen 99 pour cent du waa COUD bi yëpp waa APR lañu 99 pour cent moom kese kese moo ci nekk Pastef maanaam bu mu ñëwee ci administration COUD amul benn pastefien bu mu fa fekk 99 ba mu dëgër këcc waa APR lañ waa APR leen fa dugal ñu nekk fa di saaga di wax lu ñaaw et cetera et cetera di encaisser 1 milliard 700 millions. un milliard sept cent millions mu am chargé de mission 36 conseil technique 24 ñoom ñëpp ñu am ay bureau toog ñii du xëy am na ñoo xam ne deux ans suñu dugg université di fayeeko bokk na ci Zakaria Camara bi bu mu ñëwee mu jëlee masse salariale bi déjà chargé de mission jàpp leen 36 mu yóbbu ko 10 coow lu ñu kur ñu ne dañ koy lekk ñëw biroom pëgg fa dégg ngeen histoire boobu biroom pëgg fa bu ko agressé 36 chargé mission 36 la fa fekk yóbbu ko 10 na leen njëriñ amul leen ko fi conseil technique 24 mu yóbbu ko 10 pour l' instant un mois la def un mois jàppaleen leen bu mu defee bu mu fa duggee ba léegi un mois la def chargé de mission 36 la ko jëlee dugal ko 10 ci ñu doon fay 500 500 millions et 500 mille et quelque mu jël conseil technique yu 24 def ko 10. loolu ñooñu ñëpp boo boolee seen salaire maanaam ñooñu boole boole boolee seen salaire y a plus de cent millions de bénéfice yu mu récupéré cent millions ci ci un milliard sept cent millions un milliard sept cent millions ba mu wàññee chargé de mission de 36 à 10 conseil technique de 24 à 10 am na bénéfice su 100 millions yu mu dugal ci kees bi ñooñu nag jàmmaarloog ñoom ne dinañ ko lekk ñu continuer Zakaria Camara boobu noonu conseiller technique la mu fekk ko du liggéey du xëy du gont di faye ko mu jël ko foofu redéployer ko parce que dafa fekk contrat à durée indéterminée bien ficelé mu nekk nit boo xam ne bu ko neexee du xëy bu ko neexee du gontu te day jot salaire am bu mat sëkk ak ay prime donc mu fekk ko ci këram fekk ko sax bureau mu fekk ko ci këram loqoti ko en tant que conseiller technique lañ la ma lan la ko def gardien la ko def li ngeen di gis noonu mooy gardien gardien la ko def pour muy recevoir ci protocole bi la ko sànni pour muy recevoir étudiants yi ak di leen jàppale ci codification yi gardien dafa fekk koo xam ni këram la toog di fayeku nekk conseiller technique bu ñëwee université bureau climatisé mu loqati ko foofu sànni ko ci terrain bi ne ko demal nga doon bu ci protocole ba kon déglu leen lii bu bara xam ni daf koo sànni nag ne ko génnal bureau bi wala noqul jóge sa kër ñëwal du ma la yóbbu au frigo parce que dama la yóbbu au frigo ngay fayeku dama lay sànni ci terrain bi nga liggéey ci la ko sànni ci terrain bi moom Zakaria Camara di liggéey léegi day rës boo di ngeen ko gis léegi te étudiants yi doonu ñu gis Zakaria Camara du woon seen morom conseil technique la woon di voyager di naaw toog këram di encaisser di lekk ba biir bi fees di di jot salaire am à temps voilà wala bu ñëwee ci bureau bu tooy xapp da ko nokk lokkati ko foofu nokk ko ci mbedd bi ne ko demal ngay recevoir étudiants yi di leen jàppale di leen codifier di leen dimbale loolu la ko Ndéna Mbodj def donc mu xool ci fichier bi gis ni y vingt cinq agents yoo xam ne chaque mois dañuy fayeeku plus de cinq cent mille francs CFA yoo xam ni fichier bi reconnaître leen vingt cinq agent yu mu jàpp flagrant deli yoo xam ni fichier bi reconnaître leen mu dàq leen donc dàq na vingt cinq agent yu doon fayeku chaque mois plus de cinq cent mille yu mu dàq ci xat parce que fichier bi bu mu kii reconnaître uñ leen maanaam ay nervi lañ woon yu ñoom màgget seen placé woon foofu ñuy dóor étudiants yi di gaañ étudiants yi di agressé étudiants yi ak di yoole étudiants yi di fayeeku seen i salaire vingt cinq yoo xam ni bokkuñu ci fichier bi dàq na leen kii de mooy vingt cinq agents yoo xam ni qui n'ont pas été reconnus par le fichier donc il a pu récupérer cent millions de francs CFA en un mois en un mois sur les un milliard sept cent mille ak ay contrat à durée indéterminée bien ficelés et bien protégés on avance donc ci bu mu ñëwee fekk ay noonu noonu république bi yoo xam ne dañu éparpillé ci administration bi nu mu mel foofu la mel fépp waaw vingt cinq postes de complaisance ñu nii ne woon foofu rek donc ñu ci mel ni Zakaria Camara mënu leen dàq képp kuy liggéey ci administration buñ xam nañ ci daal am sañu seede yi toog di cotiser kooku doo ñëw rek di ñu dàq il faut faute grave pour nga mun ko dàq mais loo mun mooy redéployer ko changer ko poste redéployer ko fekk ko ci bureau génn ko yóbbu ko ci àll bi wala euh, yóbbu ko ci naaj bi mu dem liggéey parce que dañ fa fekk ay contrat à durée indéterminée bien ficelé yu ñu teg ñuy fayeeku seen salaire toog muy dox du ñuy sax ñëw Zakaria Camara bi ngeen di gis doonul sax ñëw léegi nag day génn ci bureau climatisé yi ou bien euh, en tant que léegi nekkatul conseil technique léegi genre gardien la ci protocole bi la ko boole pour muy recevoir donc toog na presque deux ans en tant que conseil technique tegul tànk université kon yéen a ngi comprendre kon kii ngeen gis noonu toog na deux ans en tant que conseil technique di fay bu xaalis bu fees tap léegi nag salaire dafa daanu il recevait plus de cinq cent mille maintenant génne nañu en tant que conseil technique 24 la ñu woon dañ doon am plus de 500000 bu mu leen génnee foofu 300000 da ciy dindee ko ils ont ils auront maintenant 200 et quelques mille dañ leen baax 200 et quelques mille waa ji dañ ko fekk mu am 500 et quelques mille ndeena génne ko ci bureau yi ak këram gi muy toog 2 ans musul ñëw ñëwul mu def ko mu léegi indi ko université dugal ko ci àll bi muy liggéey ci naaj bu tàng bi di recevoir étudiants yi mu rétrogradé ko jëlee ko ci 500000 rob ci 300000. parce que li ñu ko def léegi en tant que ci protocole bi protocole université mooy maanaam salaire dafa wàcc dañ ko rétrogradé pour muy leer donc te fekkaat na ñeneen ay jàpp lañ benn maire Malicounda Maguette seen am na beneen village bu nekk biir Malicounda koo xam ne maire la ay conseil technique lañ ay pas conseil technique ay maire conseil technique ay ñoo xam ni ñu ngi ci àll ba nekk Malicounda nekk Mbour nekk ca àll ba yoo xam ne ay conseil technique lañ yuy recevoir seen salaire de cinq cent et quelques mille musuñu teg tànk université bokk na ci maire benn village bu nekk Malicounda koo xam ne en ce moment là mi ngi en prison bëgg mois bii nii jotul salaire am da dàq na vingt cinq agents yu ñu reconnaître dàq na ñeneen ñoo xam ni ay maire la yoo xam ni ay maire yu am soixante-dix ans conseil technique ay paa bu am quatre-vingts ans conseil technique yoo xam ni ñu ay xamuñu ñan la parce que bu leen woowee gars yi ba léegi ñëwuñu te gis na ni ñu ngi doon jot seen salaire donc maire bi nga xam ne mooy maire ville bu nekk Malicounda benn village kooku da doon recevoir mais mi ngi prison parce que dafa jaay ay terrain jàmbur boo leen ko gëstoo sax dañoo gis moo taayee passé mi ngi ci kaso bi nii kooku ci conseil technique la bokk musul teg tànk université ci conseil technique la benn village bu nekk Malicounda da doon jaay ay terrain ñu jàpp ko mi ngi ci kaso bi nii jamono ji doon na recevoir chaque mois maire de Sindia très bien le maire de Sindia qui est présentement en prison était un conseiller technique de Maguette Sène un bandit de grand chemin mu ñu jàpp jamono ji mi ngi en prison mu dagg salaire am loolu moo tax salaire yu mu dagg ak agent vingt cinq agent yooyu nga xam ni agent fictif la ñu doon liggéey ñii du ñu liggéey loolu bu mu ko daggee yooyu yëpp ci mois de un mois re am na bénéfice su cent million cent millions ak ay maire yu nekk Malicounda maire yi nekk Kaffrine ay paa yu nekk Kaffrine et cetera et cetera donc ñii ay nervi lañ suñu fa ñëw ay vieux ay maire ay nervi et cetera et cetera ñu doon laaj diggante cinq cent à huit cent mille cinq cent à huit cent mille donc bo jàpp leen conseil technique yi c'était vingt quatre chargé de mission yi trente six ay paa ay maire ñu liggéeyul ok donc boobu ba léegi day recevoir ci bureau ay ga kuñ gaay chaque jour dañ fay ñëw de 9h day ubbi bureau suba suba boo neexee da ngay dem kii si ji mi université il ouvre ses bureaux à 9h il ferme à minuit ku mu neex ñëw Ansoumana Sané 99 pour cent nee naa leen sont de la paix et ont des contrats de durée indéterminée ki ngeen gis nag muy Zakaria Camara c'est c'est un syndicaliste secretaire général de syndicat chargé des affaires syndicales gis ngeen ku mu buddi borom doole la ku mu buddi nii borom doole la ku mu buddi ku mu buddi nii <laughs> sa waay foog nga am fit pour mun ko buddi de Zakaria Camara syndicaliste la biir université syndicaliste un jàpp leen de des affaires syndicales de l'université jàpp leen deux nekk un conseiller technique jàpp leen trois xam ngeen syndicaliste <laughs> daana ko yombul il faut nga guerre ak moom syndicaliste daana ko yombul de c' est un syndicaliste c' est un secrétaire général d'un de l'université c' est un des affaires syndicales de l'université c' est un conseiller technique di directeur de Koudou mu fekk ko foofu buddi ko loxoti ko en tant que syndicaliste en tant que euh, secrétaire général chargé des affaires syndicales muus ko ci àll bi da ko demal nga liggéey ngay recevoir étudiants yi donc ñu bëgg ngeen xam loolu liñ ko def nii kenn dañ ko wàcce dañ ko rétrogradé dañ ko rétrogradé ak ponkal lañ fa fekk yu waa APR mii ne muy saaga suba ak ngoon seen syndicat du personnel waaye xoolal dañ dañ ko fa teg muy saaga Sonko suba ak ngoon guddeeg bëccëg di wax lu ñaaw ñu def ko mu doon benn chargé des affaires syndicales di personnel ba nekk syndicaliste nekk secrétaire général du syndicat di euh, personnel du COUD. donc ngeen xam lii sa waay ku amul fit munoo wàcce waaj ku amul fit ku parewul pour guerre munu munul laal waaj Ndeye Mbodj a été très très très engagé parce que ragalul kii dugg na jeel mbërëg na depuis ab Ablaye Wade kon mu am munul ragal waa yi kii amul bët yu mu yor yu Ndeye Mbodj war a mun a taxaw di ko jëlee di ko di ko ragal wala di ko yéegal wax jaa ngi fii ku mun rek na dem indi leneen ñun suñu wax moom jalu muus la duñ ko laal duñ ko jege bu yàlla wàccoon ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam duñ ci laal virgule parce que dañuy xam lu ñu wax ak xaqiqatan la doomu aadama sàkkuñu ko ci ancien spermatozoïde futur cadavre ku mun a dindi li may wax man moom fu ma tëdd nelaw aw ma ci tiitaange aw ma ci ragal samay wax moom foo ko yanoo di ko fa tegaat <laughs> boo ko yóbbeelee sa baay da koy dala koy delloo day tàng jër boo ko joxee sa yaay wicc te koy wiccax na ko de jëla jëla yóbbu yóbbu yóbbu waxu xàq xatan la bu dëgër kaj bu woo kong moo tax ki koy wax bu tëddee rek day nelaw amul amul ko dox ci koo xam ne damaa wax dala di ci xel ñaar wala di ci ragal donc Nene Mbodj mooy directeur u kuddu moom mooy nouveau directeur u kuddu donc wax ji nga xam ne Zakaria Camara yàgg na di ko def di ñëpp dañ koo ñaawlu mais waa APR la kenn rafetluwu ko léegi nag da ko jëlee en tant que conseil technique sànni ko ci protocole bi protocole bi day accueillir les étudiants et orientation kese déglu leen de un conseiller technique chargé des affaires syndicales syndicaliste secrétaire général du syndicat de syndicat du personnel de l'université nga lokkate ndaayam foofu sànni ko ci al ci ci ci naaj bi université mu génn ci bureau yi toog ci këram di toog muy dox di recevoir léegi dañ koy gis yéen étudiants yi ponkal moomu ngeen gisoon dinosaure boobu ngeen gisoon muy Zakaria Camara dañ koo lokkati foofu nokk ko léegi boo leen duggee université di nga doon fekk mu taxaw di leen recevoir donc maintenant il accueille les étudiants ak di leen en attendant ñu lijjanti am mais en attendant poste moom wàcc na fa poste bi ngeen gis nii du tous lu dul accueillir étudiants yi ak orienté leen kon jëlee nañ ko fa mu nekkoon rétrogradé ko wàcc ko ba mel ni xaj loolu mooy poste bi en attendant nag donc dañ ko replacer et c'est sur décision nitu Maguette Sène mu ñu placé jël ko jox ko lépp muy recevoir plus de huit cent mille léegi nag amul sax cinq u 500000 génne nañ ko foofu te muut la def en tant que syndicaliste muut mbaa mottu rek parce que nu ngeen paree pour xeex noonu la nee na directeur pare pour xeex a waa ji gis na ko xam na xam na waa ji gis na ay tuite ma gis na lépp nu ngeen ci paree ni ngeen di taxawee noonu la ci taxawee kooku xeexam du léegi donc macha allah donc. na Ndeye Mbodj dàq na koo xam ne def na fa 15 ans wàcce na ko mu du ñëw mukk université toujours ab sax dàq na chargé de marché chargé de marché koo xam ne ci marché marché université rek la doon chargé wu. dem leen université doo leen ko fa fekk Ndeye Mbodj dàq na ko chargé des marchés day toog rek mooy chargé marché université yi ñu waa APR teg ko fa muy encaissé di chargé marché dàq nañ ko boo leen demee université doo leen ko fa fekk Ndeye Mbodj dàq na ko. chargé du budget de l'université Ndéna Mbodj dàq na ko je vous donne rendez-vous à l'université ngeen dem gëstu ji ko dinañ leen wax ni ki fa nekkoon chargé du budget bu waa APR teg ko fa dàq nañ ko muy ñaar chargé de la communication de l'université koo xam ne dañ ko fa tegoon moom tam ça fait plus de dix ans na ko dàq na ko ca xaj donc mi ngi ci balee dàq na vingt cinq agents yu fichier bi xamul récupéré na plus de cent millions ci benn masse salariale bu un milliard sept donc ngeen jàppee ko nii la demee nii la fay demee nii la fay demee en attendant à moins de un mois lii la fa Ndéné Mbodj def en moins de un mois nay leer nañ ni lii moo am moo existé bu mbir yi demee rek ñu dem au fin fond des choses lijjanti leen indil leen tegal leen. vidéo baa ngi fi jox naa ñu mun a weddi cinquante ans cinquante ans virgule duñ ko dindi man nga samay vidéo du deñ ñu mën naa affronter bépp doomu aadama buy dox ci kaw suuf samay vidéo du deñ mi ngi fi ku am ngaam wala xel boo jàpp ni xelu dëmm la bu ngaa nuuxóor ba naaw indi diir ma maa ngi lay déglu waaw maa ngi lay déglu boo ñëwee rek indi lu leer naa ñi teg dindi li ma fi def barki alxuraan lu ma yor ma ma jox la man moom damay man moom damay damay jaayante waxoon naa fi Macky Sall boo amee possibilité yanu ma fii ma ma ma jox la sama bopp ma liggéeyal la maa ngi nii toog noonu laay mën a jaayantee nag dama ne li ma teg nii ku ci dindi virgule ma ma doon sa ma ma xoolal ma doon sa mindaar ku ci dindi virgule je défie tout le peuple sénégalais ku fi dindi virgule virgule boo ko ci dundee xoola ma doon sa donc lii la Ndeye Mbodj def en mois de un mois biir université lii la fa fekk chargé de mission trent 36 mu def ko 10 conseil technique 24 mu def ko 10 masse salariale bu 1 milliard 700 mu def ko 900 millions 1 milliard cent mu daggate daggate daggate ba def ko 900 millions. di xëy 7 di ubbi bureau à 9 heures ba minuit ku dugg université fekk ko fa dàq cinq agents qui n'ont pas été reconnus par le fichier récupérer 100 millions jël ñi ne woon ci bureau yi toog muy dox ak toog seen kër yi muy dox mu jël leen ne leen da ngeen di ñëw wala ma dàq.